Sénégal man ci li ma jàpp maanaam Sénégal mooy meilleure équipe Afrique pour le moment man jàpp naa ne Sénégal bu jàppee Guinée mën na ko door 3 0 ba 4 normalement. yaakaar nañ dañu gagné parce que euh, premier match gagné nañu ko deuxième match gagné nañu ko donc troisième match on espère bien aussi que dinañu ko dinañ ko gagné parce qu'on a une très bonne équipe euh, voilà am nañu coach bu baax aussi. c'est le ballon ku nekk mën na gagné sa sa morom mais à quatre-vingt-dix-neuf pour cent Sénégal moom mooy favori. boo moytu trois zéro la ñuy def lañuy ñuy génn Guinée Sénégal lu yàgg na Guinée ak Sénégal bu ñu dajee Sénégal day dóor Guinée mais léegi adduna bi day changé mu ngi nii équipe bu ndaw bi day dafa ñëwoon dóoru Sénégal ñaata loolu ngay xalaat parce que man damaa xaw xam suba moom ñaan na yàlla incha allah Guinée moom dóoru Sénégal trois zéro. match bi moom dafa am tension parce que ñu bëri instant yi ñuy jàppee match bi day yomb. te ñoom ñaar derby la ñoo bokk benn frontière yaa ngi dégg ñoom ñaar ñoom ñaar Sénégal mën na ko dóor mais en fait tamit Guinée mën na ko fekk jël si ko waa match la daal. gine mun na eh, dóor Sénégal lu tax Sadio Mané mu ngi toppatoo jabar ji fi mu ne nii qualifié na pare ah qualifié na pare joueur Sénégal war na yërëm gine mu jàll ah ñu nekk ensemble parce que lu tax Sénégal qualifié na war na dal ah xelam war na dal loolu incha allah loolu la ñu ñaan suñu ko dooree tam li eh, ndox moo jaar ci yoonam